jërë ngeen jëf mbokki bàyyi xel MPROD TV ñu ngi fi ci diwaanu Touba Mbacké particulièrement Janatu Mahwa fi nga xam ne moom la Cheikh Béthio ah, xàllal ñi nga xam ne ñooy njabootu cantaakun yi rawatina moom mi nga xam ne mooy Cheikh Béthio Thioune def liggéey boo am solo ci njabootu murit waaye ku gis sama ginnaaw xam ne liggéey bi yàquwul benn yoon te tamit cantaay def nañ ci liggéey bu am solo waaye laataa ñuy dem ci waañ bi dañuy dem gis ki nga xam ne mooy doom ci Cheikh Béthio Thioune di Serigne Saliou Thioune nekk ku yàlla baaxal waaye tamit muy def liggéey bu am solo ci njaboot bi su ko defee rek mu jukk ay kàddu ci màggal gi ñu ñëwaat nag xool li nga xam ne mooy mbana yi waxtaanee ko waaye tamit indil leen ko fii ci MPROD TV nee naa màggal bi lépp fii lay xewee ci jaratu maxwaa ñu dem acca internet ba tey ñu ngi fii ci diwaanu Janatu waa wax naa ko léegi nee naa ah, boo ñëwee fii rek sa xel day dem ci ndem si yàlla Cheikh Béthio Thioune liggéey bi nga xam ne def na ko ci njabootu ah, Serigne Touba waaye def na ko ci diine waaye tamit def na li nga xam ne moo nekk xale yi def leen ñu am jom am fulla am fayda ku ñu toogal nii nag di rek suñu jëwriñ di suñu kilifa di Serigne Saliou ñu koy jaar bu baax a baax ah, sëriñ bi ñu ngi lay jaar di la màggal di la tatagal waaye tamit di la doolee ndokkal ci bés bi nga xam ne bés bu màgg màgg la tey jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou mbokki jullit yi mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu di am mbégte lool bi ngeen ma dékkee micro bi ma waxtaan ak yéen si bis bu tedd bi muy bis boo xam ne ñun murit kat bu ñu jariñoo ah bis bii kat moo nu dimbali muy bis bii nga xam ne Serigne Touba dane bu bis bi ñëwatee na ma sant la yàlla sa borom li ko dagge ginaar ba si waaye sunu sang ba di sëñ Béthio daan fi jëf-jëf ju am solo daan fi jëf-jëf joo xam ne adduna bépp teg nañ seen bët moom day kookee nga xam ne mooy sëriñ Béthio bu màggal masaana jot xeli nun si sëñ Béthio la jëm ngir lan ni mu daan ni li mu daan def si màggal te mu mel nii ah sëñ Béthio daal jëmm ju tol noonu ak xolam nga xam ne bu masaana jox koppari nag yi ñu jënd ji nag yi Mali mbaa Mauritanie koppari yu ñëwaat si ginnaawam bu ñu jëndoon ba matal day yónnee koppar yi ngir ñu jëndaat ay nag ngir dolli nag ya waaye mu mel nii luñ ko moom sëñ Béthio da daan wax naan sallaaw dey lu ñëw si màggal gi dama koy def si màggal gi nga xam ne dañ daan màggal ba bañ ne sa ginnaaw ëllëg sa sëñ Béthio dërëm du ko yor bu ko yóbbu Ndakaaru du ko am ngir lan jël na lépp jox Serigne Saliou borom màggal gi. sa màggal mooy sa dana sëñ Béthio sa màggal mooy sama màggal. Cheikh Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndigal li mooy moom day su bëccëgu màggal sàllaawu day bu may gis naa la njëkk gis nga xam ne Serigne Saliou sunu sang ba Serigne Touba. bu ma saana tijji mel na ni sëñ bee colay njëkk a jàkkaar lool ndax sëriñ saaliw moo toll noonu si sëñ Béthio moo bëggee noonu sëñ Béthio mbëggeel goo xam ne bu ko Serigne Saliou masaan a gis la muy njëkk a def mooy ree ndax Serigne Saliou rek sëñ Béthio rek moo mënoon a reeloo Serigne Saliou bu ko masaan a gis rek muuñ kookaay seexum Serigne Touba kooku mooy mooy mooy jëmm joo xam ne ab xolam moom rek la bi ko yàlla defal sëñ Béthio rek moo tax mel ni moom jafe na ndax wóor na ma ni ku mel noonu daal amul yombul. ku doon Serigne Saliou. Mm. ku doon man dama yar ndax sëñ Béthio moo ma njëkk a jox ma Serigne Saliou booba juróom-ñaari at la am booba jamonoy Serigne Abdoulaat booba kat Serigne Béthio Serigne Saliou daawul jël juróom-ñaari at fukki at jëm kaw la daan jël waaye bëgg gi mu bëgg sëñ Béthio loolaa waraloon ba ma ko ba ma ba ma Serigne waraloon Serigne Saliou nangu maa jël Serigne Saliou bind sama bopp bi sëggal may bind sama doqali ba sama ndigg li Serigne Saliou woolu soxna Mati Jaxate ne ko sallaahu dey baayam dama koo jox te ay atam tolloogul ngir mën a dem sa tool ya soxna mati téye ma may fanaanoog jigéen ñi benn néeg booba juróom-ñaari at la am 17 ans foofee sa bërëbub Serigne Saliou ba booba nag mel na ni biir kër Serigne Saliou gi ay seng faamoon benn kees sa faamoon mooy kees sëñ Modou Badar moom Serigne Saliou li wax nag dama ko dund te fekke ko te it kenn du ne ma dégg naa man damay toog Serigne Saliou nee man dama naan la Serigne Saliou nee waaye du ma ne la dégg naa ndax kat dama ko dund. waaw macha sa waajur bu góor bu màggal jub si woon nan ngeen ko doon waajee ak moom. sëñ Béthio bu màggal ma masaana jublu mooy ànd moom màggal gi sëñ Béthio bu weeru safar masaana jug loo bëgg si moom am ko ndax xol ba day naat. xool ba day bég ngir lan doolay weeru safar doolay bëgg gi mu bëgg gi ak fa mu teg màggalu Serigne Touba gi loolaa waraloon sëñ Béthio boo masaana ñëw boo bëggoon loo mën a bëgg si moom si safar gi dàkk ko te xam ne loo fa bëgg di ko am ngir mbég ma feeñ na moom day daanaka sax day bég saa ne waaye mbégam moomu day si màggal rek la wane saa su Serigne Sall Ndigal ah xanaa mi ngi fi xalifa sëñ Béthio waaw caq bi réerul Serigne Sall wa ne ko Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko fii ak yoonu Serigne Touba ngi dox saw yoon di dox Serigne Sall wa ko Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko bëri ko si mbartal ku si teg sa loxo mu dem ku si tegul sa loxo mu dem Serigne Saliou moo ne ko Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko fii ak yoonu Serigne dox saw yoon di dox kon bu ñu demee ba gisatuñu sëñ Béthio si saayir Serigne Saliou ndigal di jàmbaar ci gi di jëmm joo xam ne ah fa baayam tegoon tànkam magasa looloo waral ah yëf amul daray sooxee waaye loola nag da ngay mën a xam ne rek Serigne Saliou Mbàkke mi defar sëñ Béthio du nit te duy na ko duyin woo xam ne àdduna bépp xaj nañ sëñ bi. dama gis bernde yi gis ci ni xam ne njabootu seex Béthio daal macha allah. ah njabootu seex Béthio macha allah ndax Serigne Saliou sëñ Béthio daa bëggoon Serigne Saliou mbëggeel goo xam ne looloo waral Serigne Saliou Mbacké faye ko njaboot gi ñëpp bëgg sëñ Béthio ndax sëñ Béthio lum masaanaam jox na ko Serigne Saliou. sëñ Béthio ma sëtee dara lenn rek laa siy wax mooy daam bis mu ne maam Bambi sama kër gi dama ko fas yéene jox Serigne Saliou addiya maam Bambi ne ko foofee sa kees jàmm gën maam Bambi ne ko moo boo ko joxee Serigne bi ana fooy de sa njaboot mu ne ko sëriñ Touba am na ko yaay mu ne ko Mbacke mu ne ko kër gi dama ko jox Serigne Saliou addiya nee na mu xool kër gi. kër gi tuuti lool si këru kilifa mu dem sa kam taqul këram di ko daggaan ngir mu jaay ko këram kookee na ko moo beeco yow bu ma jaayee sama kër fan laay dëkkal sama njaboot fekk Serigne Saliou ne ko beeco mu ne ko Mbàkke mu ne ko del dogu sa dogu baax na lool loolu dogoo te ma fekk si la sëñ beeco na gees ne dogu naa si barkeb Serigne Touba am xelam nekk si jaay ma kër gi Serigne Saliou ñuy dox di dox ba waaje ñëw si sëñ beeco ne ko ndax sama kër nga nga soxla woon ba tey bëgg nga ko mu ne ko waawaaw mu ne ko tey damaa taxaw ngir jaay la ko sëñ Béthio ne ko loo koy jaayee mu ne ko nangam sëñ Béthio ne ko nangam te kat bu ne woon ni milliard ma jël ko ngir bëgg ma ko bëgg a jox Serigne Saliou nee na ma jël caabi kër ya ak sama caabi kër ñëw fekk Serigne Saliou jox ko ko addiya Serigne Saliou ne ko Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko maa ngi dogu si barkeb Serigne Touba nga bëri kër. bari kër googee mooy li feeñ ndax jannatul maxwaa ji bi ko sëñ Béthio di ko sanc bi ko Serigne Saliou di daggal sëñ Béthio Serigne Saliou da ne ko sàllaaw day palaab Tuubaa ngi nii seetal fu la neex ma daggal la ko sëñ Béthio ne ko moo Mbàkke fu may seet Mbàkke dara neexuma lu dul sa jëmm ji man rek yow la am dara mënatumaa neex Serigne Saliou hmm, sàllaaw da ngay dëkk ak man mu woo Modou Fall ne ko demal jannatul maxwa bërëb sangam na nga daggal Cheikh Béthio ñetti téeméeri pàkk Modou Fall di ko dagg coow la bari waaye dagg na ko si ndigalu Serigne Saliou sëñ Béthio dem di sant Serigne Saliou njàpp ndal Serigne saliw ne mu ne sëñ Béthio sëñ Béthio ne ko moom de bañ koy dagg coow la bari na Serigne Saliou wóolu Modou Fall ne ko ñaata pàkk la waxoon nga daggal ko Béthio mu ne ko ñetti téeméeri téere mooy trois cent parcelles mu ne ko àndal ak moom daggal ko junniy pàkk yu teg juróomi pàkk kon jëmm jooju sunu sang boobu kenn du ko le bu dee yërmande ngay wër ah boo yegsee si Serigne Saliou xam ni yërmande ngoog nii rek la demee jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw may bég lool nag si dalal gi ngeen ma dalal ak nangu gi ndax man ku ma woo si Serigne Saliou ma fekk si man kenn du ma woo si waxtaanum Serigne Saliou ma naan selaw bi ma toogee gëmmentu naa yaram wi tayal na waaye ba ma duggee na jërëjëf Serigne Saliou la ma Serigne Saliou may doole ak force ak kattan gu ma mën a waxee ak yéen wasalaam jaagee